taxaw nag euh, bergerie Serigne Touba géttu ci Aliou Touré xam naa ne euh, euh, gétt gi moom dafa naa ne dootu mel ni ko présenté ndax kii ñu taxaw den xam ngeen ko sama Samagal TV miin ngeen ko namb ngeen ko mais xam ngeen ko ndax chaque jour yéen koy bëggee ci ci ci ci commanteer yi maa ngi ñu ngi lay nuyu. maa lay fay Cissé Dia <laughs> di santaat yàlla di ah. julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah. di sant Serigne Touba Xaadimu di leen euh, sant bu baax di leen gërëm. jërëjëf maa yëg la euh, balaa may dugg ji xarit euh, nan nan nga demee ak Adam kañ nga bokk Adam nan moo lay lii ak Adam. waaw man Cissé Dia maa ngi maa ngi bëgg a yàgg Adam. Ah. waaw maa ngi bëgg a <laughs> yàgg Adam dëgg yàlla. Ah. waaw Adam de soo xoolee ni ma la ko waxee léegi vingt ans yi daal ëpp na. loolu ni ah kon yow xanaa ci. dafa dafa rek nga duggu wa Adam moom wax dëgg yàlla waaw yàgg sectoriel yi wala. wa sectoriel mom biñ ko commencé premier sectoriel bi biñ ko commencé dem na. dem na tay nga ñew euh yalla def na abu abu moo fi nekkon tay dem nañ ba bureau bu bees taxaw fadi lu jité ko lan nga mi gisee. wa di sante yalla rek di julli sallallahu alayhi wasallam sallam di xamne élevage. Eh, ben lañ ñoo bokk nday bokk baye ñaarel bi moy xam nga nguur hmm. nguuru yalla rek mo dul sey see jeex ah. Ah, abu wax deug yalla yoron nako yor bu rafet eh, ba yalla def li gën hmm. eh, mu delloo ko ci ay loxo hmm. loxo yi ñom fadi lako yor ok fadi lu tamit ëllëg da kay jox kenen rek ndax suñ borom ay doxale non doxalee noonu waaw Euh, di sant yàlla nag si ñoom ñaar ñëpp ndax kee wax dëgg yàlla bi mu koy yoree def na fi mu mucc ay fii tamit bi mu ko yoree c'est la première fois mu def fokk fa foire sectorielle macha mais alhamdulilah rabbil alamin lépp rafet na lépp rafet na wax dëgg yàlla man li ma si gën a yéem mooy box yaatu yi hmm. parce que box yaatu dama ko yàgg jambat ya ko kas parce que so xolé buñ doon foire ci foiru adam yu magi eh, so gisé man ma doon jël ñaari box ba ñatti box di ci def xaalis bari buguma ay xar yo xamné ay xaru million la ma déplacer len ci eh, milieu biñ ñu mo am yaatu am visibilité am lepp ñu ñew ma leen indi ay box 3 mètres ak yooyu 3 mètres yi. am nga day xawa compliqué ci ñom waaw. mais ren gis naa ne wax dëgg yàlla loolu amélioré nañ ko box yu mag nañ xar yi vraiment nekk nañ en l'aise daal vraiment loolu moom exposition bi nag ren dama gis ma ay tëng rek ak jeune mâle loo loo wane foofu waaw comme d'habitude li ma doon wane rek di ko ñaax éleveurs yu ndaw yi di ko ñaax éleveurs yu mag yi nga xam yi nga xam tamit euh, dañoo bëgg a dugg ci élevage ah.

Eh, bu ñu delloo dañuy tëbu si huit mois yi waaw bu ñu delloo nii dañuy tëbu léegi bu ñu tëboo soo xoolee bu ñu àggee du di dugg treize si la am doom tëng boo xam ne juddu na daanaka si at bi am na fi doom maal bi tamit juddu na

maa ngi lay conseillé nga jënd tëng ak jeune mâle que ñaari xar yu baax luñ jur rek loolu moo ko dàq. moo ko dàq waaw jeune doomu kan la. jeune mâle bi doomu golden la caat la. caat waaw mooy caatu golden. mooy si fi ah, golden bàyyi woon. golden yi kii mooy. waaw kii mooy caat. macha allah moom bi muy ah! bi muy sax booba papaam. Euh, wàcc na wàcc kii mu ngi tàggu bàyyam parce que waaw waaw. Ah! <laughs> ba pare nag bari na waaw ñi ngi fa damaa indi benn rek. mais ñoom ñii tamit doomu golden la comme moom nekku fi damaa indi ñeenti kat doomu golden. laa indi ak benn doomu ascendeur. fàttaliku Assane 2. mooy bi waaw waaw bii blanc bi mooy doomu Assane waaw moom tamit oh. si caat yi la bokk. non si caatu Assane 2 la bokk. waaw si caatu Assane 2 yi la bokk. Ah, tey li nga exposition bi def dafa dafa historique. waaw xam euh, tout le temps loolu la wax gis nga foire. Hmm. lu mel ni boo fi ñëwee. Hmm. doo concurrence. waaw waaw ndax foire n'importe qui ngay gis. ñi nga xam ne nag bëgg nañ ba bëgg mucc si ay euh, si élevage wala bëgg see avancé bu munti doon euh, bu ñu ñëwee fii si lu mel nii nga leen di jàng gis nga booy bi pour exemple rek li yàlla di seede euh, kii dafa ñëw Fiera fekk ma fa fekk Fiera lu bari dama fay jox nit ñi rendez-vous pour mooy ah, bi mu ñëwee ma jox ko mâle jeune mâle la presque jox ko ñaari tëng bi ñu Fiera ak léegi xam nga tëng yi bi ma koy jox foofu lañ tëboo mi ngi ñëw nii di ma wan ne ma xar yi am nañ doom doom yu rafet yoo xam ne di ma koy expliqué waaw ba ñuy dem dañoo tëbu foofu lañ tëbu waaw si la ma doon expliqué nii loolu moo ko indi si foire bi mu gis ma ne ma il faut ma wax la loolu wan la affaire yi waaw waaw loolu mooy élevage heureusement li yàlla def tamit bi ñu demee ñoom ñu am doom yu jigéen bi ñu amee doom yu jigéen nga xam ne lii kii fii ak un an si kanam gétt lay am. gétt lay am waaw gétt lay am. waaw waaw waaw waaw bu ñu amee seen yaay trois mois et demi quatre mois tëbu bu ñu amee euh, yi ñu tëb nii comme mbote bi nii fii ak déwén allah day ànd ak euh, doomam di dem. en tout cas chaque fois mon loolu euh, Mame Biré mon moom boo boo ni mi doxalee moom. mu ngi ci jamono euh, tolo nga fo xam ne yéegi yaa ngi jéem a. Euh, loxo. man ni mi nga fa gis sa liggéey fa la toll léegi. waaw may xale yi loxo wal leen yoon bi. waaw man mom tout le temps bam ba ma koy def sax. man lima ma gëm. Ah. mooy partage. parce que partage. moy yok élevage Sénégal jëm kanam. parce que lolu yag na ko wax bima ma demee Ndioum waxoon naa président Euh, waaye xam nga yàlla li ñuy wax yàlla ak dogalam rek ak nit waaye xam nga tey jii nii exemple élevage luñ mun a yokk la luñ mën a avancé loola waaye nag li koy yokk ak avancé day doon xol bu rafet waa te ñu ngi ñaan yàlla suñu borom suñu borom teg ñu loolu dimbaleñ si ba lépp luñ bëgg si élevage suñ borom defal ñu ko ana eh, ngi kër ga. Ah, <laughs> mi ngi fi mi ngi kër tey ko noppal quoi. waaw non Pape moom nee naa naa dootul ñëw. foire waaw day liggéey rek dootul ñëw foire waaw <laughs> jërëjëf kontaan nañ waay kontaan nañ merci waaw parce que Samagal TV moom dañ cee bokk. mën naa léegi da keroog bi nga may wax ma interview fële. si taala si taala soo gisee comme ku mel ne taala comme exemple rek gis nga ni mu ko doxalee vraiment def na lu rafet parce que jox naa leen ay xar xar yi jur ba génne ay champion mu ñëw ne ma eh, woowaat ma ne ma il foog nga ñëw am taxawaay si xar bi parce que xar bi yaa juddulu ay yaayam ak baayam loolu dafa rafet waaw vraiment rafet na trop loolu moom manque si remercier di ñaan élevage am yàlla na ko suñu borom yokk boo amee allah loolu dana am ah, loolu dana am loolu dana incha allah. bu boobaa ñooy ànd. jërëjëf